الرحمن الرحيم euh, ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu képp ku may dégg di santaat Serigne Touba di ñaan ñu fekkee ko déwén te déwén dàqal nu ren fuuf barkeb Serigne Saliou maa ngi am mbégte lool di dalal Euh, sëñ bi Thioune euh, mag euh, gàmmu gi nag sa sëñ Cheikh Béthio moom moo ko daan def sëñ gannaaw ba mu amee ndigalu sëriñ Saaliw ren nag nga ñëw def ko fii fi nga xamante ni moom la suñu Cheikh Béthio lay wax sax suñu seex Béthio fu mu ko doon defee ban yëg-yëg nga am tey. waaw ah, moom day yëg-yëg bi ñu am mooy xam ni ndigal la loo xam ni ma nga rote woon ca sëriñ Saaliw ci taarix maa ngi leen di fàttali ni gàmmo gi. sëriñ bi moo ko sosoon moom sëriñ Sall moo joxoon ndigal Cheikh Béthio ngir mu sos gàmm fii ci Ndakaar hmm. dañoo dellusiwaat nag fii nga xam ni euh, fii la ko sëriñ bi sose woon ci fàttali rek euh, maa ngi euh, mi ngi fàttali keroog bi mu koy jox ndigal moom sëriñ Saliou ci jëmmi boppam da ko boole woon ak juróom-ñaari nag ak suukar ak warga ni ko boo demee nanga nga sos gàmmoo ca Ndakaar ñaan nga fii lañ ko ñaane woon kon day mel ni tawféex la ci ñun ñu dellusiwaat fii nga xam ni moo doonoon ndigal li waaw ak cant gu rëy lañu jural ñu fas yéene ko màggal teg ko ci sunna waaw noonu daal la demee. Mm. Mm. de réalisation ah, wallaay dañ dimbali rek eh, ñun dey ay taalibe la ñu sëriñ bi nag bu la digalee mooy defal boppam eh, dañoo am ndimbalu tënku ci ndigal rek tax sëriñ bi di ñu jëfloo loolu nag du du du du du ku ñu dimbali jàmbaar amul ku ñu dimbali rekk am dañ noo dimbali sunu sang ba sëriñ Cheikh Mbacke yàlla na fi yàgg te maa ngi koy nuyu di ko màggal moom day moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu tëkk ci ndigal lool te loolu rek la ñu fas yéene doxe it waaw maa ngi maa ngi sant nag bu baax ndax euh, fii ñu dellu siwaat di Touba Njurul day barab boo xam ni barab bu bu bari signification ci ñun cantaakon ndax fii la Serigne Béthio nekkoon mag gàmmu gi fii la jote woon ndigal li fii la ko daan defee saa su kon nag dañu ci barkeelu rek eh, du lu bees eh, yàgg nañ ko fee def ay at ci ginnaaw mu jëntal gi lañ ko daan defee Madinatu Salaam waaye ndigal li fii la woon waaw

xew-xew yooyu nga wax te di jàll seeni bokk maa ngi leen koy masawu di leen ñaan di ñaan suñu borom abal leen ca àjjana yi gën a kawe eh, ndaw yi ndaw yi nag li ma leen di digal rek mooy ñu delluwaat seen bopp ci njàngalam Serigne Touba doon ay taalibe te déglu ndigal eh, suñu borom nag day dogal mooy dogal lu ko soob waaye day loolu day eh, lu métti la wax dëgg yàlla waaye nag ah ñaan sunu borom daal di ko fi yemale rek te te te sëriñ bi def taw féex ba ba lu mel noonu dootu leen dal waaw waaw dañ ci ñaan ndeysaan jërëjëf